yi nga xam si ni porteur de croissance la. Mhm. mais une croissance endogène. parce que ñoom am nañu benn option bu ñu jël maa ngi gis keroog Mabouba da ngay xam ni nit buy liggéey ak nit bi nga xam si ni tey tàmm na ci environnement liggéey ak environnement bu dul liggéey dañuy am différent mhm. moom identifier na yenn produits yoo xam si ni boo xoolee ci suñu balance commerciale lu importation ci ay produits yu ñu consommé. Mhm. man na presque mille soixante dix milliards mais milliards yoo nga xam dañu koy dem di ko jënd à l'extérieur moom dafa bëgg ñu d' accord donc, en tout cas mooy corriger situation am na benn question pour yow xam naa dinaa si ñëwaat parce que am na kuy demande lan mooy 4P mais comme suñu <laughs> moom la ñuy ñëw aborder tout à l'heure benn question rek très rapidement ma posé ko <laughs> <laughs> économiste bi est jàpp nga ni Sénégal mun na développer sans mu am monnaie boppam euh, ndax ah, en toute franchise quoi ndax ñu développer développer sans am suñu monnaie bopp mais ça sera un peu difficile donc souveraineté monétaire c'est d'office waaw dina métti pour nga yegg fen yi te amoo sa monnaie bopp ok cest moo tax ces nouvelle autorité mhm. moo tax ñun ñëpp dañ leen war a mhm. gunge parce que nga am sa monnaie bopp maanaam monnaie national maam loolu dafa am solo. xam nga dafa am lu ko mën a garantir. waaw mais loolu loolu ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom nekkoon nañ si. mec sérieusement est-ce que am na lu ko mën a garantir. France allez-y France dañ faa <laughs> France mooy ñaata réserve mooy jël ban ci réserve mondiale xaw ma léegi or ba fan la jóge Afrique fan la jóge depuis l'empire du Mali Mali <laughs> ñu ngi naan Kanka Moussa plus de ñaata quinze tonnes d'or chaque année da daan jóge ci empire bi mhm. di migrer vers l'Europe jusqu'à présent yow yaa ngi wax Switzerland boobu noonu li ñu def te boobu ba léegi am na une migration irrégulière de l'or bi nga xam ñu ngi koy produire donc xaalis or moom moo koy garantir ndax or moo am valeur. Mm-hmm. d'accord donc loolu te am nañ ko ñun. c'est-à-dire dafay wax lu am solo gis nañ ñun suñu nouvelle autorité dañu animé de bonne foi ba pare am courage parce que xam nga yooyu day demander courage. ok parce que dafa am deux types de monnaie dafa am monnaie nationale. ak monnaie locale. ñaar yooyu bokkul. Mm-hmm. c'est-à-dire monnaie locale loolu la wax monnaie intermédiaire. Mm-hmm. loolu day favoriser sur vitesse de circulation de la monnaie. c'est-à-dire boo demee par exemple université am na monnaie locale par exemple boo demee université. nga dem jënd seen ticket restaurant yi léegi seen ticket restaurant yooyu noonu boo nekkee au sein mhm. du campus ticket boobu moo lay permettre comme monnaie local léegi bu ko defee ticket boobu nit yi am ko moo gën a yomb que que maanaam ñu yor xaalis di ko kii voilà dañ ciy jënd ataaya dañ ciy def lépp comprendre yow yow yow par exemple doo toog nii rek ñun nii rek ñu ne booy temps dëkk bi wow na de pour nga yor cent franc problème la mhm. mais bu fekkoon monnaie local nag du demee noonu maam circulation bi c'est comme l'exemple de la Gambie waaw circulation day yomb. Mhm. comprendre maam loolu nag dafa laaj maanaam de de des de politiques publiques yoo xam ne c'est c'est courageuse. ah nañu xaar référentiel bi. comme voilà voilà loolu la quoi en fait. on léegi léegi maam loolu dafa am solo gis nga sànq sa day wax sa affaire impôt. Mhm. gis nga impôt muy dund état. maanaam impôt finalité impôt dafa am finalité budgétaire. Mhm. am finalité économique am finalité environnementale. mais aussi am finalité sociale. d'accord c'est-à-dire impôt mooy recette interne bi nga xam ne état si moom la gën a war a mën a focus mooy lu muy wax sànq élargissement assiette fiscale ba nga xam ne taux bi day yomb waaye ñëpp koy mën a fay comprendre na léegi yooyu yëpp su ressources yooyu état bi ñoom ñu ngi siy liggéey te te si tànk yooyu lañ ne par exemple euh, lu tax sànq mënoon a courage parce que politique. voilà. parce que il y a des gens volontaires. Ah. Mhm. Euh, redressé benn dossier moo si woon mhm. mais mu des benn montant. Mhm. bi gars yi door a ñëw qu'est-ce qu'il m'a dit il m'a dit mais mon frère ñëwal man daal j'ai envie ma gunge gars yi léegi xoolal ma ñaata moo des ma soldé ko dama bëgg gars yi am xaalis pour liggéey. ok léegi loolu xam nga la moo koy firndeel. xam nga la moo koy firndeel léegi la moo tax secteur informel bi boo leen waxee impôt duñ ci sawar. parce que ñoom ñuy bëgg bu ñuy dugal seen xaalis ñuy gis njëriñ bi ci réew mi. ok comprendre nga léegi ñooñu nag te pourtant état bi teg na ay mécanismes yu yomb lu ci mel ni CGU contribution globale unique nga xam ne ñoom mën nañ ci dem dugg mais ñoom xamuñu yooyu léegi nag nouvelle autorité gis nga campagne de kii bi ñuy def. voilà maanaam maanaam maanaam CGU mu doon loo xam ne dafa yomb par exemple dañ leen ne entrepreneur bi nga xam ne wala prestataire de service bi nga xam ne chiffre d'affaires am paasegul cinquante millions et pourtant annuel la koy fay ba si benn année la koy fay mu doon loo xam ne ñoom. waa nga fay 2 pour cent. commerçant nga voilà maanaam doo lu ëpp euh, mi ngi naan trop de l'impôt ti l'impôt il faut def ay moratoire man dama jàpp bu ñuy wax trop de impôt mooy taux bi ñuy imposer la ñu war a wàññi fexe ba ñëpp di ko mën mm-hmm. mais waaju nangu condition yooyu. jël xaalisu impôt bi wala nga jël xaalisu ñi ñuy dagg ñañ war a verser ne ko dëndix lekk kaso nga war a jëm. gis nga ñu wax ni yi nit ñuy wax ni lañ war a bàyyi gis nga ñu bañ a fay impôt xam nañu yan condition lañ waroon a defee dañ ko waroon dem fay bu ñu wax trop d'impôt tii l'impôt mooy par exemple bu njëkk comme ni ñu amoon voilà voilà voilà comme ni ñu amoon bu mais bu njëkk avant des temps yu njëkk yi am na ci produit yoo xam ne sax niñ ko doon imposer am na xam ne 2 pour cent moo ciy dem moom lañ ciy def yenn yi nga xam ne produit de luxe la comme tabac wala yeneen i sàngara wala yooyu mën na dem ba vingt pour cent. am na ay moom. voilà ko ci def voilà te après dañ ko uniformiser. xaw ma léegi xoolal laal la xam ma balaa muy tëj sujet boobu. cest à dafa wax lu am solo. gis nga impôt maam nit ñi dañu des dañ dañ ko dese sax maam comprendre. par exemple damay lay jox benn exemple chaque jour saa joxe exemple boobu. Touba ca kanam mais c'est contribution. Mm-hmm. moog impôt xam la nañ ute ba voie d'autorité la bii maanaam volontaire la. waaw ah, parce que nee nañ laaj lu ñu man di ko def fi ñu xam. waaw te nit yaa ngi koy def. non dañ na laaj li ñu mën maanaam Touba Ca Kanam loolu mooy devise laaj nit ñi li ñu mën ñoom ba pare def ko fu ñu xam. li nga wax ci sa client boobu loolu mooy dëgg parce que xam na ne contribuable la dafa war a participer ci liy doxal réew mi soo gisee tali bi mu rafet mu wóor la yaa ngi ci mais boo ko defee gars yi ñëw jël benn instant ne 32 milliards lañ ci def ndeke 8 milliards ñu dóor. mais dóor li ci des mais yow dootoo amati envie. la mhm. la contribution globale foncière waaw. waaw nee nañ la yow boo amee sa kër di ko loué yow. Mhm. individuellement war nga am ay kër yu bari di ko loué booy gagné ba 12 million ci at. 1 mhm. million. fay nga ñeenti impôt yoo xam si ni. ci biir lay te boo ko fay te 1 million boobu noonu am mën nga ko fay ci nga tas ko ci ñetti weer ci at. d'accord loolu kan moo ko mënul. Mhm. booy def commerçant wax nga ko. Mhm. ngay ci li ngay gagné ci at. xoolal rek 1 million boo ko ci 12 mois matul sax 100000 francs. Mhm. bu fekkee ni yow da ngay jaay xam-xam prestataire de service ngay jaay un savoir faire ñun la li ngay gagné lépp ci at bi yow 5 pour cent nga ci fay mais loolu kan moo ko mënul. d'accord. mais information moom jàllul moo tax ñu bari <laughs> loolu quoi voilà non parce que bu inform euh. damay kii ci temps wàdd gis nga Touba. autant fraude bu mosaan a dugg ba romb fi ñu dëkk douane ñemewuñu dugg foofu booy ñooy taxaw mais jël douane yi def leen ennemi doo fa dugg mais à l'arrivée de Wade bi mu waxtaanee ak sëriñ bi kow ñu sensibiliser nit ñi. mais mais wel dañuy dugg comme ça nangam parce que xam nañ ne loolu ci la mais nit ki mënoo koo kii lu mu xamut. information dafa war a jóge fépp mais nag état dafa war a dëggu kilifa boo bëggee sa njaboot respecté la maanaam mënoo doon borom kër ba pare loo wax aaw beeg ñaareel bi yow yaa jaxase sa kër da ngay fen ba pare say say say doom di ko dégg mais duñ la respecte dañuy jël sax seen copine naan waaye doxaanal fexeel paa bi doxaan la pour mu am xaalis gis nga ko fi loolu noonu moo xam nga dafa dafa am loo xam ne gis nga njiit ni mu mel dafay dem ba day répercuté wu commencé ci population bi ni ñuy def day dem ba confiance dafay daal di kenn ku nekk nooy dóoree sa morom dañuy dem ba dóor sax dama koo dóor nangam wóor yow da ngay mais ngay ndamoo ne dama koo dóor mais dañu war a fexe ba njub buñ sampoo rek comme slogan bi nga xam ne moom la président Diomaye andi jub jubal jubanti kenn ku nekk fas yéene tege ci yoonu njub nit ñëpp bëgg dee dem àjjana te wóor na la boo nekkee ci yi dafay wàññi sa ay point ku la dimbale ba nga mën a sàmm sa ngor am sa salaire te doo fen doo wuruj doo lekk gar boo ko defalee policier bi du taxaw di laal nangam ak nangam loolu nag da ngay jël alalu réew mi yóbbu ko fi mu ko waree doo dem naan ay parce que jabaru ambassadeur yi ñoo gën a neex ceeb nga dem di leen daggal salaire u 500000 ba pare alkaati bi ci mbedd mi pour nga fay ko pour ma bañ a tudd seen salaire mais nga fay ko loo xam ne du ci gis mënu ci fay mënu ci bu amee appartement mënu ko fay jalgati. d' accord d' accord ça en tout cas euh, euh, dañuy tëj euh, point boobu très rapidement ñu ñu jeexalee ko ak li nga xamante ne moom mooy bon supposé retour ki nga xam ne moom mooy l' ancien président de la république muy Macky Sall ginnaaw bi mu démissionné ci poste 4P boobu nga xamante ni joxoon nañu ko mu war a retourné nag ñenn ñi ne dafa quitté l' pour. ñëw ci élection législative yi donc d' abord fi may accès sama question euh, Pathé mhm. mooy est-ce que jàpp nga ne euh, tey euh, de démission boobu mun na am ay impact par rapport ak si wàll suñu wàllu diplomatie entre le Sénégal et la France euh, non boobu je ne pense pas que dina am impact parce que aussi liggéey boo gis bu ne boo demee bay liggéey rek comme ñoom am nga droit démissionner parce que loolu moom man gëwuma loo xam ne day impact suñu diplomatie parce que euh, ancien président la donte nag seen Sénégalais et mais démission ak liggéey ñoo ànd mais peut-être nag comme li nga wax y a relation relations diplomatiques et tout mais chaque démission day am motivation xam nga ñun ñii mënuñu xam lan moom motiver démission am peut-être bon d'après information ñu am nee nañ dañu dafa fas yéene ñëw bokk ci législative yi ñi ne nañ ci liste yi parce peut-être c'est des propos yoo xam ne ñun mënuñu ci avancer foog ñu xaar publication liste yi. pour ñu xam réellement est-ce que thèse boobu ñu joxe loolu mooy. thèse bi voilà c'est-à-dire looluy problème bi xam nga actuellement liste yi génnagul xam nit ñi ñu ngi wax naan Macky Sall mooy tête de liste. Mhm. mais ba léegi maanaam dara mënu ko firndeel. voilà officiel agul léegi moo tax yooyu noonu sànni si ay baat day xaw a jafe. Mhm. mais man je pense que ne Macky Sall moom tête de liste Benno Bokk kii nu mu tudd sax. seen coalition bi kii VAR. waaw coalition VAR Macky Sall moom tête de liste wax dëgg yàlla moom. Hmm. loolu moom lu xoromu la quoi. mais jàppoon ni aussi mën na leen mun na andi beneen doole par rapport ak. coalition non je ne pense pas je ne pense pas le contraire Macky contraire la maam bu toogoon sax mooy ñi am doole mais bu ñëwee yow Macky Sall bu leen fàtte lu mu def réew mi yëpp ba mu fi jugee yàggul. saa ñun fàtte guñ de. yow Macky Sall li quatre pour cent suffrage yi ñu jox euh, le président Diomaye mais gars dañu mere Macky Sall moom lañ sanctionné kon Macky Sall bu nekkee seen tête si pour man day gën a yombal sax maanaam euh, kii nu mu tudd euh, affaire bi day gën a yomb si si si waa Pastef. Mhm. c'est-à-dire koo xam ne la actuellement réew mi problème yu ñu nekkee yëpp depuis 12 ans li ñuy jooy yëpp moom la jël ay rapport yoo xam ne daf si tegoon concom mais loolu moo ñu problème yi yëpp. kon nag Macky Sall bu fekkee day ñëw fii moom wax dëgg yàlla man damaa bëgg sax mu ñëw ndax bu ko defee affaire yi gën a yomb mais pour man <laughs> wax dëgg yàlla bu ñëwee moom affaire day gën a yomb mais daal pour man moom mais man moom man pour man moom xaw ma nag mais gëw ma mu ñëw te man gëw ma aussi ne non góoboon na tegaat tànkam léegi Sénégal en fait. d' accord voilà. Moustapha est ce que jàpp nga ni retour am dina am ay questions yu muy soulever ci wàllu euh, constitu question constitutionnelle wala éthique. ci wàllu éthique man dama li ma jàpp mooy euh, euh, Macky ci àdduna ci histoire politique musuma gis président bu gën a inélégant ñi moom ci histoire politique wu àdduna cest à que. def na loo xam ne si dafa inédit ci suñu histoire politique Macky Sall moo fi annulé élection présidentielle maanaam ñu dem ba ay heure des ci ñu campagne mu am fitu génn de façon illégale daal di reve ko décret bi nga xam si ni moo convoqué woon corps électoral yi mu ànd ak complot ñenn ñi nga xam si ni tey tey ñoom ñoo ànd bokk liste mhm. ñuy jéem a pousse suñu ay élection bëggoon ko yomb décembre bu amul woon conseil constitutionnel bu jël woon responsabilité tey heure bi may waxee yow élection du fi am te gis nañ ko nit ñi dañ ko doon njort mais ci ginnaaw gi moom mu koy def di ko assumer nit ñi di ko gis muy def ay appel WhatsApp di wax ak ñoo xam ne ni wax dëgg yàlla ñooñu bu leen nit ñi xoolee dafa am lu bari loo xam si ni daf leen koy fàttali ci naqaru xol ñu gis ko muy organiser luy yàqal guvernement boo xam si ni ñoom bañ leen joxe nguur gi jeex na nit ñaa ngi wax démission mais man gawma démission loo gëm yow. dañ ko invité mu démissionner diplomatiquement. Okay. parce que lu tax yaa pour man ñaari yi moo koy justifier bi ci njëkk moom mooy Saa Wolof dafa am benn kàddu bu am solo bu mu wax. parce que tamit yow leeral nga ko dañoo am ay leader yu bees mais ñu am fulla mais ñu décomplexé sommet francophone ñaata yoon la kañ la ci Sénégal mës ñàkk dem ci àdduna. président dafa bàyyi sommet francophonie ñëw bokk ci activité d' investissement may dem dellu ci école am bi nga xam si ni moom la dem au même moment boo seetaanee le vidéos am na yeneen président yu nekk ci Afrique ñi ngi fier ñëw taxaw ñu leen di photo comme si euh, le vieux nègre et la médaille quoi ñu kontaan parce que ñoom dañuy photo ak benn président boo xam si <laughs> vraiment leneen mi ngi ci mhm. gis nga ñàkk dem boobu diplomatiquement mhm. message la bu ko gouvernement wu Sénégal jox parce que ñaar la il faut ñu def ñoom benn choix. Mhm. entre continuer collaborer ak Sénégal wala ñuy jàppale koo xam si ni de l'extérieur mi ngi bëgg a Sénégal beneen raison bi c'est économique mais France actuellement ci austérité lañ jëm ils sont en de diminuer et d'éliminer des dépenses non essentielles. li Macky Sall di def pour France ban impact économique la am ci développement économique et financier bu France xam nga ni France Cour des comptes dafa def rapport ni président yow réception yi ngay organiser ci biir pale bi sax da nga ko war a wàññi parce que tout simplement dafa commencé cher ci budget wu état. Mhm. donc ñoom ci processus boobu noonu nga xam si ni dañoo jël am benn premier ministre bu bees boo xam si ni day ñëw remettre de l'ordre ci seen ay finances publiques poste boobu non essentiel. raison politique bi nga xam si ne évoqué naa ko moom mooy non seulement il est en train de gêner ci relation bi France war a am ci ak Sénégal moo tax ñu invité ko moom mu démissionné. mais il n'a pas du tout démissionné de façon diplomatique il on l'a remercié mais dañ naan ko kaay nga démissionné rek ndax kilifa gi nga xam si ne. mais ça jàppoon ni tey euh, Macky bu jàppee ci campagne. da nga baal ma tamit bu bu ñëwee fii dina xoromu de. Ah. mais ça jàppoo n bu ñëwee. Euh, euh, campagne bi dina am golo bu reppee day gas. nga ne golo. Hmm. fee day gas fia loolu Macky Sall ñëw di campagne fii internet yi wax leen saa mu faram fàcce mooy golo gu mooy golo gu gu <laughs> golo bu reppee mhm. au lieu mu yéeg day dem romb fee di gas te moo la war a gën a xam kër gu bari xaj mhm. fii nii moom golo daal bu reppee day gas man de mhm. maa ngi koy ñaanal xalaat boobu gént gu neex googu mu gént yàlla na ko matérialiser ñëw fii campagne ak jàmm bu jàppee ne jógee xam ne France mënalatu ko dara déjà Macron léegi mu jóge fa te France ñoom ñoo la gën a bañ lool parce que xam nañ li mu def beneen bi scandale yiy feeñ France mënu ko làq ni Nations Unies lijjantiwuñ ci lenn ay fal même bu nekkoon président Nations Unies sax Sénégal la tooñ bu ONU dof dof loo nangam kook pal seen affaire la bu yegsee fii am na ay mesures conservatoires yi ñuy teg ñëpp parce que président mënul nekk ci biir def haute trahison premier rapport euh, de présentation Petro-Tim bankal sa loxo mm-hmm. IGE Barthélémy Oil bu def une lettre de dénonciation teg ko ci aali taabulu aali njuuj njaaj mu jox Macky Sall mu xool xiif Karim Wade woo ISE ne leen Jola dem leen enquête leen am naa lu mu rëqee ndiggam wëlbati xam ne xaalis boobu muy topp muy bonus de signature boobu doonul lu waa ji sàcc mais IGE tegal ko ci ne ko gisuñu lu ñu toppee Karim Wade ci lii parce que gisuñu ne bonus de signature muy 3 milliards et quelque kii na ko parce que mi ngi ci compte Petrosen donte waru ko woon a jël waaye entreprise bi Karim Wade jox euh, war a jox bloc bi. muy Petro-Tim waa ji ko moom amul dayo bi amul kàttan gi maanaam cuuj la kon bul ko ko jox mais Sénégal am na sens parce que kii bi président promulgué géewu ko mais Macky Sall Franck Timis dem bëri Aliou sàll boobu mi ngi nekkoon conseiller ci ambassade Sénégal en Chine ñu ñëw. egsi ak Macky Sall Macky Sall jël rapport de présentation bi ko IGE déconseillé woon bu ko jox ne ko baaxul mu dem signal ko Franck Timis loolu du haute trahison haute trahison nag jarul kenn di ci sonn loo ko bëgg loo ci bëgg a def xaj na ci comme at 80 loo ko wax loo mu doon ko fourre la mais lii c'est de waaw non ñëwaguma ci loolu dama banque loo kii benn rek la banque loolu haute trahison la ñu amati problème ak ArcelorMittal avant moom Kumba di saawatu la mu yóbbu Kumba yóbbu ñu ci yoon ñu fay deux cent milliards parce que ñun waa Sénégal dañ koo dóor dañoo gis ku ñu fay offre bu gën a bëri muy Arcelor Arcelor moom bi mu ñu dóoree ñu yóbbu ko ci tribunal arbitraire chaque jour ma nga biir Paris Paris mooy arbitré àdduna bi yëpp ci wàllu loolu ñi ko d'accord ñu xool ba ne ko Sénégal yow lañ tooñ ñaata ngay laaj ñaata lañ lay dàmpe Sénégal ne deux mille cinq cent milliards far Ablaye Wade wàcc ArcelorMittal xaritam ba Tony Blair ñëw fi xaw ma lu xew xaw ma daa am yoowu matt Macky Sall wala nangam xawee ko deux mille cinq cent milliards ba ci soixante quinze milliards te soixante quinze milliards yi yëpp duggut ndax dañ ne quarante milliards yi université Alaaji Cheikh Ibrahima ñas lañ koy tabaxee. Fouras université Touba pare na te waaju cee dem. te loolu mënut a nee na mër waa léegi deux mille cinq cent milliards. l' mille cinq. l'affectation mille cinq cent milliards. nga bañ ko laal maanaam bañ koo jël dem nangu soixante quinze milliards un agent judiciaire de l' soxna su baax Aïssa Gassama moo war a signé pour mu dugg. mu ne duma ko signé di ree du ma ko signé di jooy di intérêt Sénégal. ñu tebbi ko fa tabb Antoine ab Abdoulaye Diome. Aly Ngouille entre moo ak Aly ak président buy def loolu loolu doit haute trahison dooleel beneen élection ñu jàpp ko fi ba ko ne nangam nga ajaat ko ay nangami personne faatu waroo askan wi te yaa ne woon devant Dieu devant la nation je jure de remplir fidèlement la charge du président de la République du Sénégal se fait observer et de faire observer scrupuleusement loolu day day caaxaan mu. d' accord. mooy violer sa serment dëgg nga demaat fenn population yi. fen partenaires yi. nit ñi faatu. yooyu feeñ weeru dàng ba mi di félicité kii loolu du ay haute trahison yu dajaloo. golo bu reppee day gas na ñëw. d'accord alors euh, euh, li ñu desee ci waxtu bareetul may jaajëfal internautes yi nga xam ne depuis sànq ba tey di ñu ngi ñuy suivre ma leen di wax ngeen aimé like très rapidement ngeen defal ma ci commentaire yi euh, seen dernière question yi parce que xam naa ni léegi ñu def dernière tour de table mais mënuñu ñàkk ba a wax ci li nga xamante ne moom moo concerné arrestation yi fi jotoon na am bien vrai que libéré nañ leen mais quand même en tant que juriste bëgg naa nga ñëw ci sa par rapport ak euh, ñi xam ne libéré nañ parce que tey euh, ñu bëri ñu ngi wax ne est-ce que jotul ñu wax l'indépendance de la justice ñeneen ñi non est-ce que teelul mais tey soo xoolee euh, xaaj